ñu di la ziar ci jàmm bu baax. maa ngi ci jàmm ju bëri soxna Naata maa ngi lay mm. fay bonjour à la team et bonjour à nos chers téléspectateurs on y va donc euh, pour la météo du jour euh, fraîcheur matinale toujours aussi sensible sur le niveau national on va dire euh, rawatina ñi dëkk ci booru géej gi toujours si vous vous souvenez de l'explication et si vous me suivez toujours euh, ñaari euh, de vent. la ñuy euh, am en général toujours donc sur la partie ouest extrême ouest disons comme ni ma ko waxee woon démb euh, on est sous l'influence donc du climat qu'il y a en Europe puisque vent boobu noonu ça souffle du nord donc ça comme ça tout droit nii lay ñëw yegg si donc fraîcheur ñu ko bu baax booru géej bi et puis température un petit peu plus élevée euh, du nord allant à l'est du pays puisque là euh, c'est l'harmattan qui souffle dans ce sens-là et cet harmattan donc la nuit dafay sedd sedd moo tax euh, fajar gi même à l'intérieur du pays les températures elles sont quand même un petit peu basses avec de la fraîcheur euh, bu ñu demee digg bëccëg ci lay daal di euh, transformé wu nekk ngelaw bu tàng un vent chaud lay doon et sec vous voyez 26 degrés qu'on retrouve ce matin pour Tambacounda 27 Euh, degrés température maximale lay doon euh, à Kédougou contre 17 degrés les températures qu'on dit euh, mini des mini pour le lépp li soxal asamaan si rek donc daanaka leer na naan ni fi mu toll nii y a pas beaucoup de nuages qui affectent la visibilité donc leer na fi mu ne nii ci suba gi bu ñu demee digg bëccëg donc on revient sur l'explication fraîcheur matinale avec tous ces vents qui nous arrivent le matin ils sont frais bu jant bi xasee ba fës ba fenk Euh, l'intensité solaire donc euh, plein benn niir nekkul ci asamaan si donc pour atténuer loolu donc on va avoir une chaleur qui est dite de mise 42 degrés à Kaffrine 41 à Tambacounda on a euh, à peu près euh, la même carte que euh, on avait hier. Donc sur cette partie-là, les températures sont comprises entre 40 et 42 degrés. Contrairement au nord-ouest du pays, foofu noonu euh, les températures sont plus basses. On retrouve 25 degrés à Dakar, température clémente lañ koy wax puisque euh, dafay xaw a on mais day ànd ak jant bu fës ak peexu géej gi euh, di duggaale en même temps donc ça atténue cette température et souvenez-vous toujours que le la mer joue un rôle de régulateur thermique mu ngi noonu jant bu fës gis ngeen ko moom lañ nar a yendoo soxna naata la crème solaire c'est toujours ok. absolument pour éviter euh, cette fois-ci. Euh, hyperpigmentation bi lay indi euh, les rayons UV pour le coup mu ngi noonu pour aujourd'hui un petit peu du vent bu xaw a takku euh, Dakar lay doon dans l'après-midi on va ressentir du vent qui souffle d'une intensité un petit peu forte quand même aujourd'hui et puis la poussière tamit ñu koy euh, nemmeeku ba tey euh, ci réew mi c'est au niveau national ñu dem géej donc 18h10 marée haute 11h29 on aura la dernière marée basse de la journée ñu jeexalee ko jant bi euh, puisque teew na mu ngi ak ñun mhm. depuis 7h24 19h17 ci lay làqu rek ba ëllëg ñu daal di julliwaale. timis timis c'est ça mat na <laughs> bi merci beaucoup Miss Samb ba ci kanam incha allah ci météo bi en express ci ñaareelu pàcc bi léegi ñu jàll ci de quoi la il